alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seer namul benn buur buñ war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baal tey ñaan buur bi subhanahu wa taala mu bokk ñu ñu ñëpp bokki yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci liggéey liggéey bu ne liggéey mooy lislaam dafa bañ koo xam ne dana yàcc yàccaaral sharia li mu bëgg mooy nit koo xam ne day góor góorlu dem wuti lum dunde mooy liggéey te gis ngeen bun delloo ci alquran bun delloo ci alquran su borom dafa wax ne su ngeen jullijee ajjuma bu imam bi ne assalaamu aleykum na ngeen delluwaat ca barabu liggéeyukaaya ma waral léeg-léegi am ci ñoo xam ne danañ danañ bañ a liggéey àjjuma d'accord waaye dafa am waxtu woo xam ne waxtu woowu saa yu jotee sharia moom dalay day bañ ku liggéey ku ca liggéey day araamelit ku ca jaay ak jënd wala ku ca takk ab sey mooy waxtu wi julli jumaa jotee dañuy wax ne ku ca takku sëy sëy booba du dagan ko ci jaay ak jëndit njënd mooma des ko wara firi moo tax mu wax ne saa yu ne nag assalaamu aleykum na ngeen tasaaroo ci suuf kenn ko dem ci sa barab barabu liggéeyukaay suñu borom waxaat ci alxuraan na ngeen jéggi frontières yi ngir wuti wërsëgu ngeen dunde famsu fi manakibiha wa kulu min risqihi na ngeen jéggi frontières yi kenn ku ci nekk foo mën a dem nga dem fa ngir wuti loo dunde moo tax sara Aïsa radiyallahu anha nee na ci hadis boo xam ne ne yonent bi sansam nee na képp koo xam ne da ngaa dundal suuf suuf soo xam ne da ngaa fekk kenn goru ko kenn bayu ko kenn moomu ko nga fexe ba moom suuf sa gor ko bay ko ba suuf sa tàmbalee dund nee na su àllëgee suñ borom dana la jox ab yool mooy lu suñ sëriñ si baax si di def gis ngeen xel koom ni mu réyee sëñ Saalu Mbàkke ba mu toj kenn nekk fa woon waaye fexe na ba toj ko ba dundal suuf sa ak yu noonu ma waral dundal suuf lu am solo la suuf soo soosee nga dundal nag soo ko bayee walla nga ji fa dara picc mu ca lekk wala xar mu ca lekk nag wu ca lekk gaynde gu ca lekk lu mu ci mën doon yoolu sarax lan la ciy bindal ëllëg yowmal qiyaamat akbar kon bokk yi lislaam ci boppam dafay tere nit koo xam ne dana yàcc na yasar bañ a wuti métier bokk ku toll ci liggéey demal nga liggéey ku toll ci jàng demal nga jàngi ki war a jàng te toll ci jàng na dem jàngi bu demee ba jàngatu na dem wuti lum liggéeyee waaye toog ci barab rek yor soxna yor yi doom war leen a dundal di wéeru ci doomu aadama wala ngay sukkandi ci ñoom borom moom xel mu gumbawut pattut lagguwut dara dalu ko ci mu ay cëram loolu war na koo jom war na koo rus kon nit su fekkee ne yàlla may na ko kàttan may na ko doole may na ko xel gumbawut pattawut laggawut na dem wuti métier ca dem liggéeyi ngir dundal boppam ak dundal ak njabootam loolu li ci nekk ci ay tiyaaba kenn xamul lu mu toll moo tax lislaam dafay tere bataala bataala mooy ak yaccaara rek akuk tayel soññee ci nit ñi di liggéey bi mu dikkee tamit dafa boo demee ci alquranul karim suñu borom dafa lënkale ay aay bari yoo xam ne ci alquran diggante liggéey la ak jaamu yàlla diggante liggéey la ak jaamu yàlla su borom bi mu waxee ne laysa aleykum junah an tabtaqu la min rabbikum ci aaya boobu nga xam ne jamono aj la woon fam naan fa ida afadtum min arafat faskuru faskurullaha inda al masjid al haram loola lam ci jublu mooy su ngeen defee la ngeen ñuy def ba noppi donte yéen a nga ci armal na ngeen delluwaat ci liggéeya su ngeen armalee ba noppi ba def seeni siyaar na ngeen delluwaat ci barabu liggéeyukaaya kon bokk yi liggéey loo am solo la jéem a dunda saw ñaq lu am solo la àdduna nag moom teraange àdduna liggéey koy maye àjjanay ëllëg nag jaamu yàlla gannaaw dogalu borom bi kon lu ci nekk rek jullit bi da cee war a góorgóorlu ibnu abbas radiallahu taala nee na kaanu yattaquuna al buyuu wa tijaara fi l mawaasim al hajj nee na aaya jooju ñoom liñ ci dégg mooy jamono yi nga xam ne aj dafa jot ñoom dan daan dem suñ defee seeni waxtu aj wala ñu armal wala ñu def naa nga ma noppi dañuy delluwaat ci seeni liggéeyukaay di liggéey ngir sàkku nag ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala bokk yi soññ ndaw ñi rawatina ñi toll ci wuti métier wala ñu toll ci seen digg doole wala ñu tollu seen liggéey parent bu nekk am nga ci responsabilité soññ say doom buñ jàngatut nga ne leen dem leen wuti li ngeen li ngeen dundee ndax nit ki bu xasee masóor bu xasee masóor la waroon baayam war na ko la waroon maamam war na ko kon la lay tax noonu loola mu man ko mooy mu futti ku am jom dugg ci terrain bi sooy ambilaaji nga dem ambilaaji booy jaay ka jënd nga dem jaay ka jënd booy gori nga dem gori booy yetti nga yem yetti loo ci mën a def nga dem defi ko métier xeeb ko baaxul métier moo mën a tedd rek ca man caa amee dara rek bokk yi góorgóorlu ca moo gën bañ caa gën a góorgóorlu waaye nag li ngay sàkk na doon alal ju leew métier ma ngay ma ngay ma ngay duggat na doon métier mu lew waaye waxuñu rek nga dem ñu ne liggéey nga dem di jaay lu lislaam bañ loo xam ne da nga koy dund wala nga dund ak sa njaboot wala ngay ngay wax li fi jamono toll li gars yi wax alal des koy lijjanti waaye kenn deetu ko liggéey déedéet alal des koy liggéey waaye kat ba nee na man aasha bil makri maata bil faqri képp koo xam ne ay pexe ci ngay dund rek taf fii jël fii dugal fee dugal fii nee na booy faatu ci ak ñàkk ngay faatu man aasha bil makri maata bil faqri kon loole dañ ci war a bàyyi xel kon alal des koy liggéey alal des koy liggéey képp koo dégg ma des koy lijjanti tappalekat la ca léeg-léegi ca biir alal jam yi tappale mu cay lekk lu lewut wala mu mën ca tab bi koso wala leneen rek lu mel ne wala leneen yu mel noonu moo tax nit ki lu mu mën a doon na góor góoru rek xam ne yàlla mooy maye waaye yàlla muy maye tamit sàkkal na ko ay sabab yàlla nguuram gii da koo teg ci ay sabab ku bëgg xam-xam dangay ngay jàngi xam-xam ku bëgg alal da ngay dem liggéey ngir nga am alal yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne l'islam moo ñu ko sant moo tax yonent bi sallallahu wax ne bokk na ci lislaam soññee mooy euh, fàgguteef gi gën a baax ci si fàgguteef yi mooy nit ki ci boppam di dundee ñaq boppam ak di jaay lépp loo xam ne sariya daganal na ñu di ko jaay jamono nag fii mu tollu ku sàmmul sa ngor danga nga jaay lu bon ku sàmmul sa ngor sa ngor da dugg ci loo xam ne diine nangu ko ku sàmmul sàmmul sa ngor da nga dund lu xaraam faaw nag nit ñi tam dem gore wéet gore wéttili ku gore xam na lu yàlla indi nga xam ne li la yàlla ni waaye yàkkamti sa adduna ba dem di dugg sa bopp ci ay loxoor ak loo xam ne diine santaane wu ko moo xam da ngay jaay lu lislaam tere wala ngay lijjanti ci loo xam ne lislaam nangu ko wala ngay triya wala ngay sàcc wala ngay leb ca doo fay yooyu yëpp bokk yi yàkkamti adduna boo ko waral nit ki bu fekkee ne suñu borom moo wax ne wa ma min dabbatin fi l ard illa ala laahi risquha wa yaalamu mustaqarruha wa mustawdiaha kullu fi kitaab mubin yàlla nee na giñim gu ma xar man yàlla maa maa koy dundee la tey la may dunde ma maa ko yore góor-góor jaar ca yoon dem liggéey waaye rek bul toog nag bul toog rek ne yàlla nangam ak nangam ak moo tax yonent bi sansama nee na kenn ci yéen su jëloon ak buumam dem ca àll ba ngir taxañ matt matt moomee muy taxañ bu ko demee dem jaayi ko yàlla mën na koo dimbale mu mën cee dund moo gën nee na muy dem di laaj doomu aadama yi ak ñu jox ko wala ñu ñu ñàkk ko jox am na jamono si Abdou la bu ma jumut benn waay boo xam ne dafa ñëwoon ci sëñ Abdou di ko laaj xarum tabaski biñ dikkee sëñ Abdou Lahad na ko demal ci gétt ga xar mu jub xeeb ko xar mu jub xeeb ko xar mu jub xeeb ko dégg naa sëñ Abdou dana ko waa ji tànnal mel ne ca dem say morom rek ko fi indi waay kon kon loola mooy tekk mooy demal demal nga liggéey demal nga liggéey kon nit ke dafa war a liggéey boo tolleek sa digg doole tollee sa kattan aase googu ab yenn aas yi yi demal nga wuti métier. waaye fenn fu ne nga defa woote téléphone saa kër gi dépasse nekku fi man nangam ak nangam gumboo patte woo lagg woo bokk yi kon war ngaa xoolal sa bopp kon nan den wuti métier cay liggéey ca xam na lu am solo la Amar na Xataab wax na ci hadis bu am solo nee na nit warta toog rek tàll ay loo xam naan allahuma nee na yàlla boo doon wax allahuma ba ren ba déwén yàlla du taw xaalis Amar ibn Xataab nee na waqad alima anna samaa la tumtiru dahaban wala nee na kenn ku nekk xam na ci ne taw moom yàlla du taw wurus du taw xaalis kon allahuma ji am na solo de waaye allahuma ji day booleeg jug yëngutu allahuma ji day booleeg jug yëngutu boo ne allahuma ba noppi solo saw dal dem wuti yonent bi saa sama ne baadiru fi talabi risq dee leen teel a jug dem ci liggéeykaay di sàkku ju wërsëg waaye war liggéey tëdd ba 10 heures waaye ba 11 heures tëdd ba midi fudd jóg naan sa kaasu café dem am fa ñaari minutes te naan dëkk bi neexul yaa neexul waaye dëkk ba neex na loolu lépp dañ ci dañ ciy bàyyi xel mbokk yi nan xam ne adduna mii ñu nekk wax naa ko ci njëlbeen ku ku ci bëgg a tedd faaw da ngay jéem a bàyyi ak tayel bàyyi ak bàyyi ndiku te jéem a ak koo ci kaw suuf Amar ibn Xattaab nee na fàgguteef boo xam ne fàgguteef bu danaa mooy boo xam ne dafa tilim nee na sax moo gën ngay dem di laaj ay doomu adama yi maanaam doonul nag ne dem wuti lu araab ak lu nangam déedéet maanaam suufeel sa bopp comme la ngay jaay mu doon loo xam ne lu xeebu la ci bëti doomu aadama yi donte nit ñi xeeb nañ ko waaye am teraanga moo gën ngay dem di laaj nit ñi ñu jox la wala ñu bañ laa jox ca buñ delloo ci taarix bokk yi yonent yi fi jaaroon yépp dañoo amoon métier yonent yàlla daawud alayhi salaam daf daan defal ay mbubu koŋ dégg nga daan dunde li nga xam ne moom la daan liggéey kaana daawuda haddaad ab tëgg la woon da daan defar ay weñ di jaay yonent yàlla aadama bokk yi ab baykat la woon yonent yàlla nu ab ministre la woon dégg nga ab ministre la woon boo xam ne da daan yett ay ay dénk ak yu mel noonu yonent yàlla luxmaan ab tailleur la woon da daan ñaw dégg nga yonent yàlla taawut ab loxandekat la woon da baax da daan wulli der da ci jariñu ak di ko di ko di ko jaay yonent yàlla Ilias ab rabbukatu sor la woon borom penc mii jub maanaam méccam Ilias moom la yoroon wa kaana Ilias nashaaj da daan rabbu ay sor di jaay ji dunde borom penc mii nekk na ay at laata muy gis sëñ Tuubaa di dunde ñàkk boppam yor daara dégg nga yor yi yor kër di rabbu ay sor di jaay di dundal daara ji di dundal di dundal kër gi kon ku bokk ci moom sax da ngaa war a góorgóorlu ci dem dem liggéey danga ngaa war a góorgóorlu dem wuti métier dem liggéey wala nga dem wuti dem jaayi dem jëndi loo xam ne lislaam na ko waaye yàcc yàccaar rek sa waay toog ci biir kër gi kër gu jeex nga dem ba ca des foo fekk ñuy ataaya nga tool xeral ma kaas bu ngoonee nga daal di toog ci garan place di jël baraada bi kafe bi di xelli dégg nga du amoo métier amoo dara ca bu nga naan dëkk bi neexu def affaire bi doxul nangam nangam léeg-léeg nga mere sa mag wala sa baay wala sa nangam grand bi dafa maa war a yóbbu ma tukki ndax am na ko mën na ko wala grand ba daj ba dem tukki yow boo fekkee ne bu la grand bi yóbbee nga toog nii nga toog ci keppaar gi kër gu jeex nga dem nu lay grand bi di yóbbee grand bi kay bala laa sawar a yóbbu da ci dara paa bi bala a yóbbu da ngay yëngu ci dara mais yëngutu woo ci dara nekk ko ci dara bëgg grand bi yóbbu la ak paa bi bu ne ko waxee ngay xas paa bi yaa doxul jéem a la dox dem grand bi yóbbu la ak paa boo jéemee dox ñu yóbbu la waaye boo nekkee ci li nga nekk rek téye sa waaye grand bi daf war a yóbbu millions yi nangam ak nangam man dama war a dem Europe damaa war a def nangam yow grand bi xoolee ni nga nekk fii ci Sénégal mu xam na lay bu la yóbbee nii rek nga mel kon du baax bokk nit day nekk ci dara ba dara fekk ko ja nit day góorgóorlu ba ci dara ban ban sawar ko caa dimbali waaye yow yàcc yasar góorgóorlu woo jéemoo dara ca naan ca cay xas grand beeg pa beeg dégg nga fareel beeg yi mel noonu nan bàyyi loolu ca dem liggéey ji ca xam na yonent yi ñoo ñu gën fop te kenn ku nekk da ngaa amoon am métier moo doon liggéey bokk yi sahaaba yi bu ñu ci duggee ñu xool sahaaba yi ci boppam danoo amoon seen métier di ko def Aboubacar ab commerçant la woon Ousmane ab commerçant la woon ci jamonoy jaahiliya bi mu dikkee tamit ab commerçant la waat dégg nga moom Seydina Ousmane nga xam ne ci lislaam commerçant ci jaahiliya ci ab commerçant la woon Seydina Aliyu moom dadaan gas ay teen ñu di ko fay Xabbaab euh, ab tëgg la woon Abdullah ibn Mas'ud da daan sàmm ay xërëm ay ay ay ay ay ay gàtt ay jur Salmaanu Farisi ab watkat la ab coiffeur woon da daan wat ñu di ko fay boy métier yooyu yëpp ay métier la bu kenn kon loolu yi maa ngi koy dénk saa bopp di leen ko dénk xam ne saxaaba yi ci boppam ak yonent kenn ku ci nekk da nga amoon métier yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam commerce na sàmm na loola def na ngir ngir bëgg a dund aw ñaqam nit ki li gën ci moom la muy dundee mu doon aw ñaqam kon nan góorgóorlu dundee sanu ñaq moo gën ñuy leb te duñ fay bari na ci ñu yor yor bori jaambur yi duñ fay am na ñoo xam ne ku leen lebal duñ fay day leen fay bori ca dunde seenu ñaq ca doyloo seen ngor ca gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala du ma dañ mukk di ko fàttali yéen ñi nga xam ne nag ñoo bokk penc mii te sëñ Omar dégg ngeen la ko sëñ Tuubaa waxoon fayal say bor yow Omar ca digal ko taalibe yi a ku la yaakaar mu fay say bor dee leen fay seen bor yii ca bàyyi di lekk alali jaamur ca bañ di fay lekk alali jaamur bañ di fay moom ëllëg am na lu mu lay jural am na xadis boo xam ne xadis darqib la wala xadis bu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon ki amee bor faatu bu duggee ci bàmmeelam dañ koy jéng ba koroog ñu fay boree loolu rek jar tax képp ku amee bor nga di ci góorgóor di ko fay fi ni mujjantale nag mooy sahaaba yi añ taala alayhim ajmaina ñoom ñëpp dañu amoon métier waa ansaar dan daan bay muhaajiruna yi dan daan commerce kon ku yàlla dogal gumba woo pattoo laggi woo feebaroo amoo dara loolu loolu dal génnal sa kër rawatina nga yore njaboot yore soxna nga dem wuti métier wala nga dem yëngutu ji wala nga dem liggéey moo gën fenn fu ci nekk nga defa téléphoné wala nga taxaw di laaj ku la joxul nga mere ko ca naan grand bi wala paa bi nangam nangam yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna al-ijtinab wa ma dhalika ala bi'aziz tawil lana umrana sahhil lana badana wa hab lana rudd wa tawfiqa ya allah ودمر كل أعداء تدرب بنا قبل الوصول يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سيحة لما صرف من وسر عني يا الله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين